doom neex ndey. waaw <laughs> Sawolof nan nga jàngatee convocation boobu. ah convocation bi day pour man ci ordre normal la. Mm-hmm. wax dëgg yàlla parce que bu fekkee ne mbirum suuf la. Mm-hmm. ah bu fekkee ne moom moom li ñu convoqué day justifier ne moom moom. Mm-hmm. en tout cas daal famille boobu li leen li ñu leen doon tudd ci ci ci ci ci alal bari na trop. Euh, damay fàttaliku rek bu yàggul kii nga xam ne moo am lanteeg problème kii mari loola doomu Ismaïla Lô. Mhm. ndaxte loolu. non Marie la tudd. Marie Marie mhm. Marie Marie Marie Lô. Marie Lô Ismaïla mhm. euh, ci am na ci benn kii bu mu doon wane. pour dóor ñi mu nekkal. muy jógee màkk mi ngi naan maa ngi nii màkk yaay diwa ànd naa nga. koy kii ak yooyu. yooyu yëpp yi am daf daan teel xel. mais yooyu. man moom damay bëgg. na leer rek loolu laa ci mën a mën a mën a wax. Mhm. en tout damaa jàpp ne réew mi. Mhm. suuf si ñu caxat caxatee bari na. Mhm. ñi ko war a dëkkee ñu ngi fi di sonn. moo tax terrain chien na li ci des bëreetul. te du doon suuf du doon suufantu. en général du doon suufantu te xaj na ci Sénégal la. gars yi dañ daan xotti fu nekk. te loolu buy leer duñ jël cent cinquante mètres carrés de. jeex na yeneen ci des est que sax moom bu boobaa da nga ciy déggee ne est ce que moom moo dem dox jël suuf si. wala dafa am ku ko def ci turam loolu it lu nekk nañ xaar daal enquête wax ñu ko. prête-nom mm-hmm. waaw waaw prête-nom dafa mm. dafa xew nag. dafa xew mm-hmm. waaw kii euh, Khady Ngom bu Sonko bi ne ñu ñu ñu désabonné. Mm. bi dañuy manifester suba. Mm. waaw ah. euh, mm-hmm. suba dafay nekk journée sans presse. ñoom ñëpp dañoo nar a teg ñi seen micro. seen i big dara parce que dañu jàpp ne euh, li nga xamante ne ni moom la ñu teg presse bi. ara nekkul loo xamante ne ni lu gën ci ñoom la muy wàllum fisc compte yi nga xamante ne ni tëj nañ ko waaw léegi xam nga ñu ko sax benn bundu xataal. non foofu. ma ne na parce que moo waral. Euh, édito bi nga xamante ne ni gis nañ euh, tey quotidien yëpp euh, benn édito en commun la ñëpp daal di ko. partagé man loolu dama koy ñaawlu ba pare ñaawlu gi ñu koy ñaawlu ñoom ba def ko man ñaawlu googu laa ñaawlu. ndax damaa jàpp ne bu fekkee ne ay impôts yu ñu la teg. Mm-hmm. soit nga wone ne amoo ko. Mm-hmm. dem ci yoon. wa ilaa muy dëgg koy tooñ ko mm-hmm. maanaam foo koy jooyee bu fekkee dafa am nguur gi fi nekkoon bàyyi la ngay sàcc loolu càcc la tudd man dama jàpp ne ñu kaso lañu war a def. bu dee dafa am su fekkee ne amul nag impôt da leen sosal. am na lu ñu mën a wane luy teex taxaw ne am nañ kitis wala fay nañ wàccoo nañoo ak yoon. bu ñu wàccee yoon ñi dee ñoo leen rey. Hmm. maam ñi dee ci hôpital yi par manque. Euh, de vigilance wala ci nangam ak hmm. wala fu sapeur war a dem waru bu dee yaa ko rey. Hmm. faral di wax keroog bi Ousmane Sonko waxee ger ger dafa dama ko wax ma ne alkaati bi bi nekk Dakar di servir Dakar dëkk Thiès. waaye mu dëkk Sébikotane wala mu dëkk Bambey. gis benn oto fii. war koo jàpp parce que mm-hmm. faaram doxul wala ay signalam doxul mm-hmm. bi mu jàppee oto bi mm-hmm. oto bi mu baal waa ji gënee bon ba gënee bon mooy waa ger ko ñaata la ko gere junni ah mu pare wari ko mu naa ne wari ba pour bañ a publicité comme wari doxatul léegi naa ne wari <laughs> mu pare wari ko waa këram ñu nekk ba ngoon jabaram togg cere ñeex mu neex waaye daa yónnee pour ñu jëndal ko cere mooy jigéen ñu tayal ñu maas ak maane gi nga xam ne duñ duñ waaye dama ne dañuy mën a mooñ ba pare te duñ mooñ man man man mënuma kii jaaykatu cere laa moo tax waaw jaay dañuy dem jënd am na dañuy dem jënd cere dañuy mën a mooñ ba pare dem man moom duma kii moom waaw léegi mu yónni doomam ko ca jees mhm. doom ji di dem rek oto bi mu bàyyi woon mhm. fiir xale bi ñu woo ko ne ko sa doom yi hôpital mu ñëw mu dee bi mu xoolee ñu jàpp waa mu xool mooy chauffeur bi mu bàyyi woon mhm. léegi police boobu nan lay def maanaam ger boobu nan lay def ci boppam daal man mhm. léegi bu doom dee ku ko rey mhm. amaane bu doom dee waaw hmm, ah kuy lay concerné yow mi bàyyi oto boo war a jàpp oto ba dem rey sa doom sa doom dee ko rey yaa ko noonu it ba tey médecin bi nga xam ne te loolu histoire réelle la li ma lay wax ni yëpp. Euh, mhm. bii sax côté dama xamul Inde la xew woon wala pays asiatique yi. benn nit professeur buy jàngale. Mhm. am waa ji warta am not. Mhm. fekk mu waroon a takk jabar. ñu war koo jox xaalis pour ger ko xaalis ba bari. mu nangu ger gi daal bàyyi kooku mu at mu dem ba jëmmi jamono jabaram it am doom war a am doom ñu war koo opérer. Mm-hmm. pour sauver yaay ji ak doom ji. Mm-hmm. ndeke waa ji mu bàyyi woon te warta am na mu jox ko not koo koy opérer waa ji opérer liir bi dee jabar di dee ku rey njabootam. Mm-hmm. maanaam ku rey njabootam ger. ku ger. Ah. waaja yow lañ ger. pour waxee ne rek ger baaxul. impôt it dañ koy fay. maanaam réew soo ci nekkee. am lu manqué ci réew mi pour da dañ koy kaas de. Mhm. ñu ngi wax léegi naan tali yi yàqu mais tali yi yàqu wala tali yi ñu war a tali defaruñ ko wala hôpital yi ñu war a tabax Sénégal hôpital niveau 4 moo fi am te dang genre am na ci yoo xam niveau 4 la rek mais hôpital tey war na mën a am hélico ci kaw. Mhm. nit ki war na am fu mu defee accident hélico bi naaw. comme ci gàmm yi wala màggal yi ni affaire yi di xate nga xam ne ambulance sax duñu am fuñ dem mhm. fuñ fuñ jaar mu ne ràcc pourtant bu hôpital yi amoon hélico mhm. danañ mën a jóg ñëw ba ci bi te foofu maa ngi xalaat euh, proposition la bu may defal état bi comme lu mel ni principal dafa war a am hélico mhm. comme ni armée hélico wala ñu utiliser hélico armée boobu dañ ko fa bàyyi yu mel noonu cas yu mel noonu ak yenn hôpital yu bëri léegi yow bu fekkoon ne yow dañoo ñëw ci accident bi tey benn journaliste ci ñi nga xam ne fay nañ mhm. wala fay ñu yegg ba toll ci màggal bi am fu ñu defee accident yàlla tere mhm. pourtant bu hélico ñëwoon jël leen seen xaalis a leen jël ndax li ñuy cotiser ci argent compte bi yàlla mooy tax ñu mhm. mën cee jënd loolu te pourtant Sénégal amagu ko ba te war na koo am léegi kon yow bu dara doxul yow mi fayut yaa ko doxalul léegi nag boo ci bëggee taxaw man nag ñu ne média yi nañ leen exonéré. buñ fay sax bu la neexee. feek ñu ngi ko yaxal dem ba ensemble voté ko. nit ñi bu nañ leen may grawut man mu benn problème ci loolu. parce que ñu ngi fi am aide la presse bi yeggul ci seen ndaw mm-hmm. am na ñu koy yeggale mais am na ñu ko yeggalewul seen plateau yi def fa mu yànji képp boo ñëwee toog fu baax képp. Mm-hmm. yow ma fay def émission képp mu normal am na ci yoo xam ne moom foo xam ne du leer. wala micro yi bu baax. gis nañ mm. micro yi ah xam ne lii du du du caaxaan. Mm. yan presse ñoo ko fi ñoo ñoo ci <laughs> di ko def. Mm. ci yoo xam ne te te suñ la ko joxee dañoo war a xool sa bërëb yanj yi nga xam ne ñu bu ñu seetaan seetaan qualité. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne duñ ko ci def am na koo xam ne presse am man saa yi ma fay déglu géej am na benn genre bruit. <laughs> est-ce que ngeen seetlu leen ko. 7TV day grincer parfois 7TV boo koy seetaan am na benn bruit bu mel ni benn groupe ngay taal lu mel ni genre coow gunóor yooyu. Hmm. wala man rek la. <laughs> man loolu jaaxal na ma de. am na loolu si table de mixage bi la rek. am na benn hmm. soof boo xam ne bi ngi bi ngi am foofu. Hmm. pour wax rek ne qualité bi foofu lañ ko war a def kon man bu ñu demoon tey ne nañ leen wàññil ba ñoom bu ñu dee jëndati ak TVA. au lieu ñu fay 18 pour cent ñu fay cinq pour cent amul problème. man de aw ma ci problème. mais nañ dem ensemble ba def ko léegi nag loolu yow li nga fi def yëpp Macky Sall la fekk bu fekkee da ngaa waroon a fay te fayeeku la ab sàcc la yow it ab sàcc nga da ngeen a àndandoo woon di noggatu askan wi. Mhm. kon damaa jàpp ne xëy di bind bay wax yooyu noonu pour man affaire ñàkk jom la. kantaan ak wax ne dañuy diis na nañ ñu kii yal bu leen neexee ngeen dem ci mais li ngeen ko mhm. bu fekkee ne tey Feeling euh, Dakar. Mhm. dafa war di fay taxe di ko fay normal. ah euh, Saa Wolof Média bañ a fay. Mm-hmm. ñu dem ba mu yàgg ñu ne na état baal Saa Wolof mm-hmm. te tamit daa war a demaat jëlaat la la Feeling Dakar fayoon daa war a dem remboursé ko. Mm-hmm. parce que sinon kon man mi fayul man maa ëpp avantage. fu mu tege. loolu daal laa ciy wax daal man li gars yi wax dëgg la ku fayut na gaa yi des ku gars yi ku grève na gars yi de désabonné mu jeex tàkk. Ah. ah loolu de la gars yi wax. saa loolu droit la nag réew mi déedéet <laughs> non dama ne dama ne réew mi la. dangaa mi. te boo fayee. li nga war a fay. ñu defar ci tali yi. te tali yi continuer man damaa bëgg a jaar ci tali yu baax. te tali yu baaxul yi waa ji nan bet. première bet première bet. Mhm. du naa daa naroon sàcc suñ douze milliards mhm. mais kooku ab nu mu doonee sàcc noonu la doonee entreprise de presse bi bi fayu tamit ab sàcc la. Mhm. léegi man fa sa kiy sàcc du ma la jàppale. moo tax kon kii suñu Xadi Ngom mii li mu wax dëgg la désabonné leen. maanaam ko sàccut bañ jàpp la nga taxaw ne damay grève ndax liñ may jàpp te damaa sàcc kooku dañoo war a désabonné ci yow. Mm-hmm. d'accord xam nga euh, mm-hmm. Fatou dañuy mm-hmm. dañuy wax problème presse bi ñu ci bëri dañ koy accentuer si li nga xamante ne moom mooy euh, euh, wàllum impôt fiscalité fisc ak yu ñu mel redressement fiscal dañoo war a fay fay